mbokk yi asalaamaaleykum sant leen gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Media benn waxtu jot na ci studio Ndeye Awa Mbaye bisimila ci xibaar yi. bokk na ci ponk yu gën a ci gën a fës ay bakken yu rotati ci tali bi ñeenti nit euh, faatu ci ab accident ci yoonu mbuur bi boo demee ba ca boori Bandia ñu ne accident boobule ñaari woto la benn woto Dacia yi ñu gën leen xamee ci war gaynde ak benn particulier bu marque Peugeot mbeun mi ca fatik ak jafe-jafe yi ñu uh, jural askan wi uh, jamono ji mu melni ni uh, yi mu ngay bax ndax ay moyens de pompage yu am solo yuñ fa yobbu ca Diourbel mom ñi loru ci mbënd momulé mer bay futu demone ngir wone sen mer bobu ca maire ba waaye police mom mo len ko gantal ñu ne maire bi jamono ji daf len di lu di len sétan ma gam bu Tiwaawoon danaka fukki fan kep mom mo ci dess ay waxtu it ñu door bourde bi fofu ci diwan bu sel ba mu melni nit ñi tàmbali nañu euh, di fa fees euh, dell ñu waxaat euh, ci ñaar fukki at yi ñuy fàttali fàttaliku suuxu bato la Joola na ci ay njaboot ñu ci ñàkk seen i mbokk ne li leen naqari mooy démb ay manifestation politique yu ñu nemmeeku ci réew mi mu di ku gi wala ñu fare ci pouvoir bi ñu ne dafa mel ni yëf yi daal dañ ko soofantal te mu naqari leen loolu ci biir xibaar yi itam dinañu waxtaane ci grève bi am ci ñenn ñi formbalit yi ci mbedd mi ak vétérinaire contrôleur yi xool ndawal gi ñuy euh, amal fële ca Sogas ñaareelu pàcc bi xibaaru biti réew dinañ ci ànd ak Fama Dione tàggat yaram Malal Junior Diagne li yëglekaay xëyee tey ak Serigne Saliou sekk gis-gis ñuy waxtaanee fexe ba dund gi wàññite ak wàññee ko ak euh, dogal yi ci njiitu réew mi jël lan la ñuy xaar ci subvention bi ñu war a jagleel secteur énergie ci kanam lay doon Abdoulaye Diop moo fare ci technique bi. soxna Nata Mbaye ginnaaw bañ leen ziyaare ba noppi xibaar yi dañ koy door rek accident bu metti ñeenti nit ñàkk ci seen bakken juróom-ñett am ci ay gaañu gaañu mu ngi amee boo egsee ba Bandia ci yoonu mbuur mi ñu ne nag accident boobule ñaari woto la benn bi di oto Dacia yooyu ñuy wax war gaynde te ñu yeb ay nit di daw diggante dëkk ak dëkk beneen woto bi ab uh, oto particulier la ñu ne marque Peugeot yeneen leeral ñu ànd ceeg Ndeye Mbati Dieng ca Mbuur xayma ndégandikoo ñenti nit lañu wax ne ñoo ci ñak seen bakkan juroom ñet am ci gañu gañu mu di accident bo xamantene boori fukki waxtu ci suba la am tay jilé ca banja boy génn ci fi nga xamantene ne nge xox ci digënté ben auto particulier le bu dacia ak ben poso ginaaw lolé nak sapeur pompier ak gendarme yu mbour dem nañu ci bërb ba ngir taxawu ñi nga xamantene ne ñoo seen bakkan way itam ñi ci ami gañu gañu ñom ñep nak ñu boole leen yobbu ci hôpital ci noné itam ñu nekkon fa ngir làqatiwaat circulation bi nga xamantene ne dafa tàggatémbee won ci bobé gox ndax ndax accident nga xamante ne am na fa tey ci suba Ndeye Mati Dieng Mbour rajo Futur Média. yenn saay euh, li ñuy jëlee ci géej gi mu di jën ak euh, lu ni mel dafay manqué lool ci sunuy waax ba tax nappkat yi euh, dañuy dem fu sore sori ay accident di leen ci mën di fekk yenn saa yi ngir fexe ba dimbali leen ñu euh, moytandiku lu ni mel direction surveillance de pêches euh, jox na leen ay jumtukaay euh, ci wàllum taxawaay rawatina comité local de pêche artisanale ba ca Kafountine bokk na ci mbir yu bees yooyu ñu leen jox fexe ba wàllu gaal yooyu noonu nekk ci géej gi te bëgg a dem Europe te ñi am ay jafe-jafe ñenn saa yi Ziguinchor Lamine Ba. mool yi nga xam ne ñu ngi yeewoo ci commune bu Kafountine tàggat nañ leen ci taxawaay bi nga xam ne war

jeun da fay faral di Rar sa su ne ba taxna na nappkat yi dañuy faral di dem ci bir geej bi di fa sori loolu ba taxna amal len formation bi ni mel da fay yok bu baax baax seni karange loolu di kaddu assan Ba mom moy chef service des pêches bu surveillance bu ñona tay tagat len ci nak lañuy defé surveillance bu mais boole ci aussi sensibiliser wa len li nga xamantene moy sécurité en mer nak lañuy def ba ar sen dundu ar sen matériel dem ci jamm dikk jamm mais également jox len ay jumtuwaay. nappkat yi nag jamono ji liñ leen di ràññee ci sauvetage migrant clandestin nga xamne dañuy jubali Europe mu ngay tambali di baru baax mu ngay tambali tàmbali di bari bu baakha baax ba taxna tagat nañ len tamit ci fànn wowe ba nga xamne buñu bu ñu gisee bu ci jaaxle ñu mën ko jappelé Abdoulaye Demba mom moy coordinateur comité local de pêche artisanale bu Kafountine formation bu tay bi ñëw na gën euh, la sécurité la surveillance en mer ñun ak euh, suñu wa la DPM et la dps et aussi sauvetage bu nga xam après après pour pompier am ñu ñu defal ñuko et les premiers secours parce que lélé da ngay gis mol amna na nap armandi mu dem caas japp ko nu mu koy mu nekk problème. li weesu tàggat bi nga xam ne def nañ leen ko mool ya yeewoo fa nga xam nag moo di Kafountine jagle nañ leen ay jumtukaay maanaam ay équipement d'aide à la navigation ngir ngir ñu mën a am kaaraangeeg mat bu ñu nekkee ci biir géej gi Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. ñii loru ci mbënd ma fële ca Diourbel am lu leen metti loolu ndax dañoo jàpp ni seen maire jàppale wu leen benn yoon ngir wane seenum naqar demoon nañ ba ca maire ba ngir euh, taxaw fa waaye police ba ca boppam moo leen ko gàntal ñoom maire bay futu ñu dénk seen i kàddu Alimatu Sarr ci ab reportage. quand c'est illégal on fait usage de la force. et je ne veux pas un rassemblement au niveau de la mairie. maire ñun ñoo ko moom ñun ñoo élire le maire. ngir bañ ab coowaloo daal am dajalo bi lo. doorle ci mbënd mi ñu na moon a ca biir mairie bu Diourbel waa police daal di koy dakkal ñu mer ba futtu yile sinistré ba ñu génnee daal di wane seenub naqar Boubacar Seye ñi ngi ñaawlu moom mi ñu war a protéger ñu war a ànd ak ñun bu amee suñu souffrance mu waa police tey ñëw di ñu génne loolu moom rafetul moi qui te parle suñ kër ci suuf depuis deux ans yi ni dañ ko abandonné donc ça veut dire que métti ña nga xam ne amuñ benn force pour ñëw génne ndox mi ñu tëdd ci biir ndox mi mais pourquoi pas maire bi ñëw ki ko côté social am lu leen mën a jàppale. ñu ne li ni mel mënatuñ koo dékku ba tax ñuy ñaawlu rek noppi gi nga xamante ni meeru bell amal na ko ci seen i jafe-jafe. même bu dul dara population bi muy dem di leen jàppale mais na ñëw taxawu leen bokk. ñu ne au moins ce kii kat population bi ni muy dund ñoom yëg nañ ko mais santuruñ maire bi liñ gis moom mooy démb mu woo ay nitam di def ay fête mu ne dañ koo fal ay président commission alors que population bi ko tax mi am loolu ñi souffrir moo ne de ab proposition yóbbu nañ ko foofee ca mairie ba ci kàddu may sa ñing waaye maire bi dafay def rek melni ni ku ci yëgul dara moom conseiller municipal la am na ku tudd Malick fii te mu doon impôt et domaine amoon na ay partenaires italiens ak espagnol ñu ben projet bu ñu tënkoon jébbaloon ko mairie bi pour installer vie ay usine récupérer ndox meeg salte beeg yëpp transformer ko mais loolu lépp mujjul antu parce que maire bi fi ne il est sa porte personne ñi lorulee ci mbënn mi di xamle ne seen xeex bi dañ koy doog a tàmbali waaye maire bi ci boppam nee na kàddu yi ñu yëkkati dafa laale rek ci wàllum politique mi ngi xamle itam ni daana amal la ab doxub nemmeeku ci gox yi amee jafe-jafe jëm ci wàllum mbënd mi Diourbel Alimatou sa rajo Futur Media. ca Fatick moom dafa mel ni seen i jafe-jafe ñu ngi wàññeeku ndànk-ndànk muy euh, kër yi ndox yi nangu di amna ay euh, dispositif de pompage yu am solo yuñ fa yobbu ña euh, fukk ak euh, ñenti moto pompe yu am doole sax ngir ndox mi jóge fofu ba tax yenn ci délégué de quartier ak yenn ci kilifa yi nekk fofu japp ni situation bi maîtriser nañ ko fi ñu tollu ndox mu bari jot nañ ko dindi Aminata Goudiaby évacuation ndoxu taw yi nga xam ni ñoom ñoo nekkoon ci biir dëkk bi fees fidèle ñi ngi koy continuer foo dem nak ci gox yi nga xam ne inondation yi gën a équipement pompage yu am solo ña nga fa ñu teg sax matuwaay yi nga xam ne moom la ñu jëloon ba mbir mi di soog a am fi ne dañ koo yokkaat bu baax a baax suñ sukkandikoo ci préfet bu Fatick di El Hadj Madické Dramé mooy dans tous les quartiers déjà am na camion hydrocureur ñi moto pompe de fort débit yu ONAS ay 1000 mètres cubes la euh, trois trois moto pompe de 1000 mètres cubes am na solo euh, ñu tas ko ci bassin bu mag bi nekk quartier Darel ak fële seen station de pompage bi de gros moyens sont gis nañu ak tan bu baax a baax ndaxte ndox mu bëri génne nañ ko ci kër yi nga xam ne ñoom ñoo inondé woon ak itam yenn bëri bu liggéeyukaay yi. situation bi ñu ngi ko maîtriser baax a baax a baax xam na nag euh, dafa laaj ñoo xam day dafay laaj ay mesures exceptionnelles te rencontre des yi ñu état di jox à chaque fois am na yaakaar ne bu yàgg dara incha allah la situation va stabiliser. préfet bu Fatick nag moom da doon amal ñaareelu réunion moom délégué de ci yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci mairie bi ak itam association yi nga xam ne moom moo ëmb ndaw ñi waxtaan yi nag boo ko déggee di nga xam ne am na ci ay famille yoo xam ne sax jaratul ñu tuxu ndaxte situation bi daanaka mën nañu wax ni ni tane na bu baax a baax. pour le moment y a même pas de candidat en fait moom au

day tax Mamadou di borom di dogal ba di ñu parce que situation euh, conditions sociales et économique population bi xaw na donc su jëlee ce qui est important Mesurer solo mais lu am importance mooy application c'est pas décision de amener, mais nous ko ñoo ko war a def ko mu feeñ si panier ménagère parce que décision su amee suñ ko appliqué wu correctement ñii ñi luñ si duñ si gis seen bopp. loolee itam la beneen borom kër bi daal di gis. ah mais c'est une très bonne chose dégg nga wàññi dund bi goon mooy tax euh, réew mi kenn dootul coow li wàññeeku mais tant que nag ñi ngi fii nag di yokk dund yu mais ñi dañuy gën a souffrir déjà li ñu souffrir euh, li ñu souffrir rek doy na sax il faut que ces ministres là euh, se mettent au travail et puis essayer d'appliquer les décisions. njiitu réew mi di président de la république. démb ci ab réunion boo xam si li ko taxoon a jóg moo di xool nu ñu def ba wàññi njëgul dund gu cher gi foofee fi la appal ministre yi yore wàll wi ñetti ayu bés ngir ñu am ci ay saafara nekk beneen mébét boo xam ne dalal na xelu boroom kër yi. bi ñu leen doon wax sànq ci euh, yoonu Mbour euh, jamono ji nag jàppaleen ni bilan bi gën naa metti ndax euh, juróom-ñaari nit ñoo ci ñàkk seen bakken sànq ñeent ñeent lañ doon wax am na ñett ci juróom-ñett yi amoon ay gaañu gaañu dañoo mujjee wuy ji sunu borom muy bilan provisoire kon juróom-ñaari nit ñoo ñàkk seen bakken ci accident boobu du ñàkk ñu gën ko yaatal ak Ndeye Mati Diop tey jii Ndeye Mati Dieng tey jilee am na ay concessionnaire nettoiement yu ne dañuy banque seen i ndax jafe-jafe ñu am état bi koppar gum leen ameel bu mënatuñoo jënd euh, essence bi dawal seeni woto waaye nag euh, Medina jàpp Wakaam jaar ci corniche bi euh, suñu reporter Seydou Nourou Ba fu mu romb daanaka gis na ay éléments yu UCG yu fa nekkoon di liggéey ñu jàpp ni rek grève bi daanaka du ñëpp ñoom ñoo ciy sóobu Seydou Nourou Ba li nga xam ne moom lañu ñu bëri doon ragal mooy tonikatu mbalit yi daal di amal seen i ba mbedd yi foo jaar muy xeeñ waaye loolee amul ku dem Medina gis fa ay agent yoo xam ne ñoo ngi bokk ca UCG di tonni mbalit mi ci wetu ab camion ca wetu de cassation naka noonu ay agent yore seen i kon ndimbal bi nag du rek nguur gi am na tam ay privé ñenn ci ñoom ñoo nekk ca grève di rek wane ne grève bi nga xam ne collectif bu boolee concessionnaire yi ci wàllu nettoiement wala ton ndimbal bi nag askan wi sentir ko bu baax a baax ndax am na ñay liggéey daa ci nag fàttali ñoom ñoo ñee li ñu laaj nguur gi mooy bor boo xam ne mu ngi toll ci fukki milliards ci suñuy koppar. jërëjëf Seydou Nourou Ba yeneen liggéeykat yi bootu ci alliance and gësëm ak intersyndical liggéeykatu collectivité territoriale dañoo bëgg a lëkkale seenub doole ngir seenub sàkkuteef ñu mën leen cee fekk si ñu ne nag dinañ amal benn plan d'action bu ñu nar a doxal ànd ci ab gréewu ñetti fan doore ko alxames aljuma ak altine gi ñu dëgmal bokk na ci li ñuy sàkk ñu yokkal leen seenu payor ci loolu la ñuy déglu Sidiya Ndiaye moom mooy vice président alliance alliance And Gësëm nekk itam ki yore kàddu intersyndical liggéeykatu gox-goxaan yi ci micro El Hadj Ndiogou Diène def nañ fi ñetti fanu grève boo xamante ne vraiment ñëpp a ko respecté yeneen yi bi ak And nga xam ne moo nekk ci wér gu parce que ñun am nañu agence santé yu bëri yu nekk ci collectivités territoriales yi bi ñu waxtaanee ñu daal di aménager suñu agenda pour que ñu mën a ànd ensemble parce que question yi nga xamante ne moo ñu boole muy question salaire hausse de salaire bi ak ñun point indiciaire bi nga xamante ne moom may agent santé euh, cinquante mille francs euh, prime indemnité de logement vingt cinq mille francs ñu yokk ko ci seen prime de risque bi nga xamante ne cinquante mille francs léegi muy soixante quinze mille yokk ko aussi indemnité prime de d'itinérance bi nga xam ne quinze mille la woon ñu yóbbu ko trente mille ak indemnité responsabilité paramédicale bi nga xamante ne ñii vingt cinq mille la selon les grades ak ñii trente cinq mille donc looloo tax léegi ñu def fi sanction pour fédérer xeex pour que mu gëna ma ampleur ñu gëna a mën a régler waale problème sinon kii day régler kii du ko régler donc looloo tax comme santé mooy tutelle technique ñu ne ko local ak santé bu ñu bu ñu jumelé seen force danañ am résultat looloo tax ñu def moom woowu loolu nag bu ñu paree ba pare ñu évaluer samedi passé ñu analyser waat ñu ne naam nekkuñu ci cadre unité organique rare unité d'action la ñu nekk mais mën nañu def en sorte aussi bi tam ñu ànd moo gën bon comme que situation bi dafa jàmp et que santé aussi dafa sensible ak état civil ñu ne léegi nañu may gars yi yetti fan yoo xamante ne danañu ubbi liggéey pour que permettre ni ñi nga xam ne amuñu woon soin ñu mën a faju ji rapidement euh, balaa ñuy demaat grève parce que grève yi ñu ngi koy fixé dañ ko décrété le jeudi 29 neuf le vendredi 30 ak le lundi 3 octobre donc ñu yaakaar ne euh, autorité balaa nañu dégg ba woote rencontre boo xamante ne nañu permettre euh, ñu régler problème yi. ñenn ñu soobu ci grève ba noppi muy euh, intersyndical bi ëmb liggéeykatu ministère pêche agriculture ak élevage ñetti fan ca Sogas moom vétérinaire yi topp nañu mot d'ordre bi bu baax a baax waaye daa mel ni grève bi amul benn rëq-rëq bu mu indi ci ni abattoir yi di doxee ndax ndawal gi moom mu nga fa ba léegi ñu ngi kon fàdd foofu di jaay ci gis-gisu président regroupement professionnel abattoir yu Sénégal Bassirou Niang lay wuyoo. cy'imikono ngoka waaw grève vétérinaire wax dëgg yàlla moo ñun santuruñ ko noonu ndax man mi amoon naa nag yu waroon abaat bi ma xëy see tey fekk naa dèjà ñu rey benn bi ba mu nekk frigo beneen bi léegi nii abaat ko ba nga frigo kon vraiment ñun yëguñu ko daal wax dëgg yàlla mm-hmm. mais est-ce euh, ah, en réalité war nañ ko tamponné parce que ndawal gu ñu rey biir abattoir comme y a des de production qui sont des ak yeneen ak yeneen ay yeneen techniciens yu la ah yaakaar naa ne def nañ ko waaw yaakaar naa ko man sama ñaar nag abaat nañ waaw ba fi mu ne nii daal wax dëgg yàlla ñun yëguñu ko noonu daal parce que man ce matin laa ko yëg bi ma ñëwee ba yegg si laa ko yëg bon bi may dem di xool dèjà fekk naa man sama benn nag bi ñu abattre ko ba pare dëgg dëgg kii nu ko daal non yëgu ma ko yëgu ma ko sant ruñ ko daal Eh, Tiwaawan ak eh, gàmmu gi incha allah fileek eh, fukki fan lay doon bourde bi tey jii lay tàmbali ci diwaan bu sell bi jamono ji nit ñi tàmbali nañ fa fees dell ci yoon yey dem ca jumaa ju mag ji ak yenn quartier yi li ñu fa nemmeeku nag mooy liggéeyu assainissement bi mi ngi indi ay rëq-rëq ak ouvrier ak ingénieur chinois yi ñoom ñëpp ñu nga fa daanaka ngir fexe ba defaraat yoon yi waaye laata gàmmu bi ñoom ñu bëri nag jàpp ni dem beeg dikk bi am na ay jafe faaw ñu lijjanti ko Cheikh Anta Diop Tivaouane ay ouvrier ñu ngi leen gis ñu ànd ak ay ingénieur chinois di defaraat tali yi jekk-jekkal ginnaaw nag biñ doon amal ab assainissement fii ci li wër jumaa ji daanaka tali yu bari dañ leen gasoon tey jii de lépp mi ngi teguwaat ci yoon xalifa ñang nekk ci koskas bokk ci comité d'organisation gàmmu bu Tivaouane ni liggéey bi am na ay yeex-yeex ay manquement bi ñu demee Dakar réunion le lendemain yëg nañu ni bu doonte ne juróomi daf daan liggéey juróom fukki dafay liggéey moo tax tey actuellement nii mën naa wax ni ci liñ ñu garantir ñu commencé seete course bi nga xamante ni mooy mujj pour télé bi nekkaat télé bu ñi ngi ci nawet loolee tax am nañu ab plan bu ñu teg ngir bu tawee de ndox mi ñu mën koo yóbbu ci ba du comme ñu ngi ci nawet te gàmmu nawet la te xam na ne ak 10 ans ci kanam nawet la gamu, gàmmu ci digg nawet la gamu. municipalité bi jël na ay camion hydrocureur ñuy wër yi ba dotation bi daan am ci état ONAS mu doon 50 camions ren dañ ko def 70 camions pour que léegi bu tawee camions yi ñu gi ñu dem mat nga ndox yóbbu ko pour nit ñi mën a xeex mais xam nañ ni contexte bi war tey ci ñaari at yi nga xamante ni gàmmuwuñu xam nañ ni nit ñi dañuy ñëw ak doole waaye nag dinañu def sunu kéemtulaay kattan ba kenn ku nekk la nga xam ne mooy sa bëgg-bëgg sa wàll tarbiya yàlla jàppale ci incha allah. jaawoon jamono yi taalibe yi ñu ngi dikk bu baax ngir fekkee nag burdu bi am na sax ay volontaire ak waa koskas ñu ngi taxaw nag ci xal yi ngir gën a ritaxal dem beeg dikk bi ngir nag fexe ba embouteillage du am ci biir Tivaouane ak li wër jumaa ji RFM Thiès Cheikh am na lu ñu bëri seetlu démb ci jamono ji ñuy fàttaliku naqar ak tiis ñaar fukki at suuxu bato la Joola ay politiciens jàkkaarloog taskatu xabaar yi lu ci mel ni waa Benno Bokk Yaakaar ak waa Yewwi Askan Wi ña ñu àndal ñenn ci njabootu ñi loru ci euh, jëyee jooju nag am lu leen metti politique euh, fullaalu luñ len faydaalu luñ len senu metitit euh, daf leena a Cheikhna Keita jiite association bi mom limu bëgg moy euh, ki di maire bu Ziguinchor nga xamné ne teewu fa woon di Ousmane Sonko ak maître Oumar Youm mi taxawoon di def conférence de presse ak njiitu rew mi ci bopam mi amuloon ndaje ca Palais ñom ñepp ñu jéggalu len dañ koy dégglu Cheikhna Keita ci micro Lamine Ba. yebel la gu metti la parce que buñu togué ñun ñuy fàttaliku ko ñu ni ñàkk ci bato Joola muy 1953 mort au porte du ñëpp xam nañ dafa ëpp te xam nañ aussi négligence incompétence coupable de l'état la nga xam jëlu matuwaay yëpp mënoon nañ ko éviter ku melni ay Omar Youm ku melni Ousmane Sonko ki waron taxaw fi fii Ziguinchor ñewu fa di defi politique ila un empêchement kokku vraiment nu xolal bopam bu baax parce que il a tout le temps lancé des bonnets Macky Sall ne considère pas la Casamance lui en tant que maire de la Casamance en tant que maire Ziguinchor muy tok naan dafa am empêchement empêchement politique di def ay meeting mais dañ fekk loolu lu ñàkk fay la ñun mais loolu lañ ñu vraiment war ne ñu faalé wuñu toppatoo wuñu xamuñu ne ñun dañu ñak ay nit ñoo xamni dañu cher man mi wax sama ñaari doom laa ñàkk yoo xam ni tey jii bëggoon naa ñu toog fii tey di ma dimbali suma retraité mais yàlla jël na leen jël leen jël la xam nañ ko mais lépp lool de foofu lañ jaarale seen gën mais négligence la dañu xam nag ne ñun nañ ñu baalu ak publiquement buñ ko deful ñun duñ leen bàyyi benn yoon te leen wan ne ñun am ñun sénégalais la ñu ñu ñëwuñu fii rek parce que dañoo jóge beneen bu réew ñëw fii te boobaa dañ xam parce que naufrage bi am na douze nationalités du Sénégal douze nationalités ñu ngi ci bato bi ñàkk ko mais du dellu loolu nga toog yow le le maire de la ville de Ziguinchor ñuy da ngay dem politique Oumar pour faire un combat je ne sais se permet di wax di nekk politique yooyu mais nañu wax ni tooñ nañu te ñun maire nañu ci walum jàng mi ak li euh, ñuy benn banque de l'éducation mu di guléet euh, ci réew mi euh, dafa sax nag yéex a am bu ñu sukkandikoo ci waa deb ngir fexe ba jël en charge financement système éducatif bi fii ci réew mi ndax mu gën a baax projet bi daanaka mu ngi dox bu baax a baax bu ñu ci ki yor wàllum recherche ak documentation ci deb Mamadou Ndiaye lay wuyoo ay kàddoom nongo kaa moo ko banque de l' qui ki présenté wax na ko nee dafa gis ni tay éducation financement bi dafa nek ben enjeu bu profond parce que wax éducation faut accompagnement tay ñu ngi wax wax problème abri provisoire ñu wax problème manque d'enseignants enseignant ñu wax problème école yi amul ndox amuñu toilette donc yoyep boko boo financement day yor taxaw financement nak amna ci aduna bi mais fay am ay sensibilité ñoo xamni nit ñi dañuy yaakaar ni éducation nekul domaine bo xamni dafa rentable comme ni ñu koy waxee gis nañu doon c'est pas immédiatement rentable mais dañuy gis ni lolu du vision bu sori comme vision bu sori di raisonner en termes de génération 25 ans pour di nga jéem tabax di nga investir éducation kon dafa laaj parmi les investisseurs là ñuy am ñu nga xamantene dañuy am une forte sensibilité yu yëg njariñu éducation mën di financer le domaine de l'éducation banque bi ci conception bi ñu ci am tay enseignants yi war nañ ci mën a adhérer di ci denc di ci dugal di ci génn te gis nañu tamit ñoom it am nañu leen di naqari des fois ci type de banque yi ñuy nekk partenaires yi def naa professeur Abdou Salam wax na ko sànq nee na banque bi si à l' étape d' initiation la toll waxtaan nañ ci groupe d' initiative bi installé nañ ko pare am na syndicat d' enseignants yu bëri ci bokk ñu ci waxtaan ak nguur gi donc def naa ci phase initiation ak phase de lancement lañ toll tey nag présenté nañ ko fii pour différents acteurs présenter présenter. Nous, indi ci RFM bitim réew. ginnaaw ba ñaar fukki simili ak ñett bootoo ci benn waxtu ñu egsi ci xibaaru biti réew ak Fama Dione Fama maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay naata. ñu tàmbali ak Mali foofu euh, visite délégation bu CEDEAO bi ñu aj ko euh, kilifa ya ñoo ko def. Nana akufo do di njiital bu Ghana euh, Macky Sall président bu Sénégal ak Faure Gnassingbé bu Togo ñoom nag ñu ngi leen doon xaar tey jii ca aéroport Modibo Keïta nekk ca bama ko waye nak xibaar yi mujj ci jot dañu ni autorité yu Mali dañu sàkku ñu dak visite bobu leb alhamis gi di ñëw ndaxte nee ñu seen agenda daal mo waral li ni mel xamuñu nak ndax. réunion bañu amalon ci bañu ñuy amal 77e assemblée générale ONU te amal fa foofule ab session bu CDAO e mo war tax am déet waye lu ci mënti am. ñoom waa Mali euh, kontaanuñu ci CEDEAO nañu doxalee foofu foofule waaye nag ba fii ñu yàddoo waa délégation CEDEAO bi waroon a am. ñoom nag euh, àddoo guñu ci mbir mi. ñu jàll ci Burkina Faso foofu am na fukki soldaar yu ñàkk seen bakken euh, ci benn congu ab camion bu yab ravitaillement. camion bi ay defkatu ñaawteef euh, ñoo ko songu démb ci ngoon ginnaaw nag bilang bi nga xamante ni def na fukki nit yu ñàkk seen bakken am na leneen loo xamante ni am na mooy la nekkoon ca camion ba yépp yàq nañu ko te bu doonoon dund goo xamante ni askan waa soxla nañu ko nekk ci Soum di ab dëkk wu nekk foofu ca Burkina Faso. camion bi nag daanaka ndimbal la doon yóbbu waaye nag ginnaaw bi ay renfort la ñu indi ngir daal jàppale askan wa nga xamante ni ñoo soxla dund googule ñuy fàttali nag juróomi fan ci weeru saatumbar gi ñu nekk ab bus boo xamante ni da yóbbu dund ci gox boobu la tamit ay defkatu ñaawteef dañu ko songoon ab engin la ñu fa sànni mu daal di éclaté boobee nag wàññi woon nañu sax fanweeri doomu aadama ak juróom ñoo xamante ni ñàkkoon nañu seen bakkan dañuy wax beneen convoi boo xamante ni defkatu ñawtey fii dañ ko laal bi yoon nag ca Tigré la bi nag convoi bi di euh, PAM di programme alimentaire mondial camion ba ay projectile ñoo dal ci kawam waaye nag bakkan rotu ci waaye lépp loo xam te ne dund la te ñu waroon ko yóbbu daanaka euh, yàqu nañu ko ba fii nag xamuñu ni ndax wax PAM dañuy yóbbuwaat ay dundam ab déet ci gox boobule ñoom nag nee ñu quatre août gi ñu génn 24 août gi nga xam te ni moom lañu génn sax amoon na ab song ci seen convoi waaye ba léegi nag ñoom tamit àddooguñ ci. Fama ñu des ci Afrique ba tey wax waa euh, Rwanda taxaw nañu temb ginnaaw ay cas yu ñu détecté ca Ouganda. alerte bi yéeg na ci réew moom la ndax xam ngeen ni Ouganda ak Rwanda ay euh, pays euh, frontalier lañ dañoo dend képp koo xamante ni da ngay jóge ci Rwanda nag dugg ci biir Ouganda. ku génne Ouganda di ñëw ci biir Rwanda di nga jaar ci aéroport ba ñu defal la ab test ba noppi nag daal lay isolé ci benn camp di nga fa def fa ñaar fukki fan ak benn bu ñu gisee ne amoo benn signe ñu soog la bàyyi nga dugg ci biir réew ma dañuy jeexale ci Iran ak manifesté ya fa juróom-ñaar fukki nit ak juróom-benn ñàkk nañ seen mbàkkan di ab bilan boo xamante ni ab ONG bu tudd Iran Human Rights moo ko génne nee na nag ci lim am na juróom-benn ñoo xamante ni ay soxna lañu ak ñeenti xale ñoo andi ceeg Soda ci juróom juróom-ñaar fukk ak juróom-benn doomu aadama ñoom ñoo daal di ñàkk seen bakkan ci xiiruk ŋaayoo googe nga xamante ni ay manifestant ñoo ko daal di déclenché fukki fan a ngi nii gannaaw ba benn xale wu jigéen daal di faatoo ci ay loxo policier coow loole nag mi ngi daal di tàmbalee fukki fan ak juróom-benn ci weeru sàttumbar gi ñu daal di nekk gannaaw ba ki nga xamante ni moo di Macha Amini di ab xale lu jigéen bu ay atam toll ci ñaar fukk ñaar daal di faatoo ca l'hôpital ba te xam ne loolu mi ngi am ñetti fan gannaaw bañ ko tegee woon loxo foofee ca lañ ko doon tuuma nag moom moo di sart ya ñu tëral yu ñeel jigéen ñi moom la daal di respecté wul loolu nag moom moo daal di tax ay iranien di wàcc saa yu ngoon jotee ngir daal di xool ba xam jigéen ya nekk foofee ca dëkk ba yépp respecté nañ sart yu ñu tëral waaw am déet autorité iranienne yi nag ba fi mu nekk nii bilan ba ñu joxee moom moo di ñeent fukki doomu aadama ak benn yu ñàkk seen bakkan yoo xamante ni ay manifestant bokk nañ ci naka noonu ay takk der waaye daal di nañuy wax ni am na ay nit yoo xamante ni teg nañ leen loxo cent manifestants niki démb ci ngoon nag manifestants yi dañoo rek daal di commencé waat di yëngal ci benn gox bu ñu naan Tabris nekk ci nord ouest bu dëkk ba am na sax benn vidéo boo xamante ni dañ ciy gis policiers yi di tiire ay gaz lacrymogène ci kaw ay manifestants bu ñu sukkandikoo itam ci vidéo boo xamante ni bu yees la bu AFP daal di publier gis nañ ay police anti émeute yoo xamante ni dañ doon dóor manifestants yi gis nañ itam ay étudiants yoo xamante ni dañ doon xotti photo seen njiitu réew ya ba tey ci coow loolee gis nañ itam ni ay soxna yoo xamante ni dañu doon jël seen kaala yu ñu muuroo woon di ko lakk wala sax ñoo xamante ni dañu doon jël ay ciseaux di dagg seen kawar. jërëjëf Soda Thiam soxna Naata ñu yëndoog jàmm. jërëjëf Fama. RFM Sport. ginnaaw faama ñu dalal Malal Junior Diagne Malal maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar Arajat Nata. <laughs> aywa ñu wax ci euh, football ginnaaw Bolivie Sénégal di dajeek Iran ci euh, match xarito. jongante googu daanaka file ki waxtu lay euh, tàmbali ndax ñaari waxtu bu tegalee fanweeri simili ci digg bëccëg dañ ko fas yéene amal ca Vienne ca réewub Autriche. xale Sénégal yi nag euh, noppi nañu waajal googu googule jongante wante équipe bii noo dajanteel di équipe bu Iran jooje uute na ak équipe bu Bolivie ndax taxawaay bi mu am ca euh, fa ko yàlla samp ak réew ya mu wër na di wàllu jongante Youssouf Bodian moo ñuy xamle ak ñoom. bi Iran daanee Uruguay benn bal ci dara ci match xaritoo ajuma ji weesu mu doon mbetteel ci ñu xamuloon équipe bii nga xamante ni gagné na ñetti yoon Coupe d'Asie Dari jamalok Uruguay bo xamanteni ci défense Ronald Araujo FC Barcelone moo fa milieu de terrain bi Valverde bu Real Madrid ci attaque bi Darwin Nunez bu Liverpool ak staram bi di Luis Suarez ci kanam star bu sélection bu Iran Sardan Azmoun lewuyo nek attaquant Bayer Leverkusen ci Bundesliga bu Allemagne amono Saman Goros nek milieu de terrain bu Brentford ci première League anglaise wali di des ci joueur Iran yi ñu ngi Croatie Qatar Émirat waaye ñu gën a bëri ci ñoom ci championnat local bi la ñu nekk équipe bi ki koy tàggat di Carlos Queiroz ñëwaat ci banc Iran ginnaaw bi mu fa nekkee diggante 2011 ak 2019 technicien portugais bi sax moo yóbboon Iran ci coupe du monde 2014 ca Brésil ak 2018 ca Russie moo nekkoon sax ñaareelu coupe du monde bu tegloo bu Iran laata kon juróom-benneel bi koy xaar ca Qatar. waaye saa su ne Iran ci premier tour bi lay toog ci coupe du monde yooyu le tey ci ngoon nag Carlos Queiroz na dajawaat ak Aliou Cissé mu doon ñeenteeli yoon ci atum 2022 moo nekkoon sélectionneur bu Égypte bi Sénégal daan ci final CAN bi weesu gaynde yi tamit ñoo tere équipe Carlos Queiroz mu dem ci coupe bi di ñëw ñaari équipe yi kon di dajewaat ci contexte bu wuute ci match xarito boo xamante ni ñaar ñi ñëpp dinañ jéem a kon des ci dynamique bi ñu nekk ndax ñoom ñëpp gañe nañu seen match bi weesu équipe Iran nag démb dañoo indi seen jàppale ñi fay manifester ginnaaw bi ab soxna ñàkkee bakkanam ci ab police des mœurs ci seen dëkk message bi nag ki ko siiwal di staru équipe bi Serdar Azmoun donte sax fédération bu Iran tere na joueurs yi ñu daal di addu ci mbir mi nu mel. ñu déglu léegi euh, kenn si joueurs yi équipe nationale yi di Papa Abdou Cissé moom ak Aliou Cissé démb ñoo doon dajeek askut xabaar yi wax ci jongante bi ñu amal euh, ba si tey jii waaye itam ci li leen di xaar ci coupe du monde bi noonu ko déglu. waaw match le sans sans ay supporters yoo xamante ne ni c'est un peu dommage on aurait bien aimé nous jouer avec euh, le public euh, ou public euh, iranien mais voilà c'est comme ça ils en ont décidé comme ça nous devons suivre comme ni mais du wax voilà match là. quoi supporter ak sans supporter on va représenter le Sénégal Inch'Allah. Benen, moi et groupe on le vit bien depuis un moment et on se soutient ñu ngi jàppalante suñu biir malgré euh, yi jot am yooyu mais ay athlètes lañ te on est prêt à tout football non la am na ay moments yoo xamante ne du neex amee moment yoo xamante ne non noonu la day neex mais ben, je pense pas que sax ne moment yu naqari la peut-être lii dina nekk loo xamante ne dinañu booster à ce que ñu gën forts fort que d'habitude te ça se voit on le vit bien Alhamdulillah. ñu dem ñu dem ci beneen disipline muy bal euh, malal jëwriñ bi ñu dénk wàllum tàggat yaram bu bees bi président euh, fédération bi Seydou Diouf euh, recevoir na ko ca stade Iba Mar. moom Seydou juuf moo dalal Yankhoba Diattara ca stade Iba Mar Diop nu waxtaan ba noppi ba Diattara yippil ko ay dig yu am solo jëm ci waajal coupe d'Afrique bi ñu war a amal ci juróom-ñeenti fan ba fukk ak juróom-ñeenti fan ci weer novembre wii di ñëw. waxtaanee nañu ñoom ñaari kilifa yi mbooleem jafe-jafe yu nu jàpp ni moo gàllankoor uh, seen tàggat yaram googee di handball bu nga xam jëwriñ ji ni dina ci indi saafara ndax itam bokk na ci uh, li ñu ko sas mooy mu taxawu bépp xeetu tàggat yaram lépp des ci ànd ak uh, Soda Thiam mi toppoon seen ndaje mi ci suba tey gi nu jeexal ak wàllu bëree bu ànd ki dóor kurpe ñi laata moo tàkk jàkkaarloo ak xas-xasloo tey dina dox diggante Siteu ak Papa Sow gannaaw bañ leen boole woon daaw yëf yee mujj yàqu ndax coow lu doxoon diggante tëggkati Siteu ya ak Papa Sow bi yoon boolewaat nañ leen ngir ñoom ñaar ñu dugg ci géew bi ci arène nationale ba daal di kon bëre waaye laata loolu neen tey ji ci place du souvenir daan fa amal ndaje ak tasatu xabaar yi mu am xumbu te dagan promoteur ba nag nee na jël na bépp xeetu matukaay ngir xew mi bañ a yàqu te képp ku ci bokk nu seppi la ci ni ñuy seppee soow ni ñuy soppee euh, weñ ci ci soow lolo kon moy li ñu japp ci euh, tàggat yaram gannaaw dégg naa ci xabaaru tàggat yaram xabaaru bi ci réew yi jigéeni Iran yi ñoom suñu di ñuy foqi seen karaw dagg seen karaw ngi wañe ni mel na fii Sénégal de xanaa moom dagg karaw moom du fi xew <laughs> ndax am nañu lu ñu dagg sax ah. <laughs> jërëjëf Malang Junior jaay <laughs> Ndayan legos International ncia Assurance TDST Touba daru Salam Karo Okayar ndox mi neex te sell Gambrendi et la Beauty Malaysia Yumu Home Choice Sénégal ak marque bi di Total Tools ñoo leen ni may li ci yéenekaay yi. li yëglekaay yi xëyee tey ñu ànd ceeg Serigne Saliou Seck. dal jàmm njëgul dund gu cher gi daanaka fépp ci yéenekaay yi nu xëyandoolu l'observateur ca la bokk journal Futurs Médias bi ne démb ca palais de la république fa la président de la république woote woon waxtaan ngir defi pexe ngir njëgul dund gi ñu wàññi ko ci ni mu gënee gaaw ci kanamu ñu ko seq Macky Sall jox Amadou Ba mi premier ministre ak ministre yi mu jiite appub ñetti ayu bés l'observateur ne bi la yoon kay Macky Sall dafa dogu lu ëpp ñetti waxtu la toog ak gaañi di leen tegali ponk di leen leeral itam ne xam na ni aduna bi dafa salfaño ak guerre bay xew ci Ukraine waaye faaw nguur gi defi pexé ngir mëna génné borom kër yi ci jafé jafé yi ni jankontel waxtaan wowe amé won ci téwaayu Amadou Ba mi premier ministre Abdou Karim Fofana mi ministre bi yoré walu commerce Mamadou Moustapha Ba mi ministre bi yoré budget finance Ali Nguy Ndiaye mi yoré agriculture ak Yoro Dia mi sallo lepp lu aju ci walu jokkok jokolante ci palé ba ci nonu président Macky Sall daal di xaatim fukk ak juróomi dogal yo xamné fukk yak ben l'observateur néna dañi len mën ta xaar nañ ko lijeent ci ni mu gëné gaaw ci du Quotidien ne quinze mesures le président Macky Sall jël démb ngir ñu wàññi dund gu cher las quotidien duppee ko recette bu yees ngir Macky Sall le ne combat bi Amadou Ba doon wax kay door na gaañ ci njëgul dund gu cher gi lañ ko tàmbalee njëgul lu asbet yéenekaay bi nee ñeenti fan ci weeru octobre bi ñu dëgmal dinañ ko waxtaane ngir xool moom it nan lañ koy wàññee le soleil national ne 17 directives le président de la république joxe démb ba noppi a Macky Sall appel ministre yi ci ti jël bésu fukki fan ak ci wéru mars mu nekk bëss bo xam sa yuñ ci accepté waxtaan lay doon ci digënté nguur gi ak association yu ëmb consommateur yi direct news né waxtaan wa amon démb ci palé ba kay xibaar la bu neex lool ci borom kër yi li quotidien ne borom kër yi kay liñ bëgg a dégg dëgg moot yi ñëgul dundu gi wañi nan ko lolé itam lañ doon waxtaané ci palé ba tax journal bi duppé ko réunion présidentielle bo xamné ne taxono juk modi wañi ñëgul dundu gi enquête yene kay né Macky Sall kay système bi ni doxali ci ñëgul dundu gi ci bopam la noppi ngir soppi ko taxaw temm ngir borom kër yi ak góorgóorlu yi waat ndax politiciens yi ay nit lañu journal bés bi la journée li leen jaaxal moo di démb àdduna bépp ñoo doon fàttaliku suuxuk batalo Joola nekk njombe li gën a rëy ci taarixu suux ci géej ci àdduna bi ku nekk ci àdduna bi doon ndey saanu réewum Sénégal waaye yéenekaay bi nee na suñ politiciens yi moom waxuñu sax lu ca jëm ndax démb ci seen intere yi bopp lañ nekkoon muy waa yeewi askan wi di waa Benno Bokk Yaakaar ku nekk dangaa woote woon ñu jàpp ne waxi batalo Joola nga fay wax waaye waxi politique képp moo leen yitteeloon bés Ousmane Sonko moom mënoon na caa bañ a bokk ndax nag moom mooy maire bu Ziguinchor waaye Sonko ca cérémonie bi nga xam ne si moom la ñu jagleele batalo Joola sax dafaa yebal ndaw ñëw Dakar toog di fi wax waxi politique journal boobee kay ñoom waa yeewi askan yu bàyyilun dara Macky Sall aane démb itam Ousmane Sonko bàyyilul dara journaliste yi lu nekk la leen yàq tax yéen kaay bi jël paasub lëmm ngir tontu ko moom Ousmane Sonko su aane Sonko dafa jàpp ne bépp journaliste naan dañuy maase wu a yokku ca ne Ousmane Sonko waaye média yi loolee yitteelu leen li leen tax a jukk moo di mbir mi leer te it ko bàyyi lu dul ne dafa leer source a yokkaat ca ne di xalaat ne journaliste yëpp dañ leen a jënd day mel ni nga naan politiciens yëpp demoon ca Sweet Beauté ngir maase wu a tëj wax ji ne Ousmane Sonko dafa jàpp ne bépp média bu dul wax lu ko neex wala li mu bëgg a dégg dañ laa corrompre yéene kaay bi ne loolee nag mooy dakk Benno Bokk Yaakaar ak Aminata Touré seenub yéenekaay ne waa Benno kay fi mu toll daaneel Aminata Touré moo leen yitteel ci lii quotidien ñoom député yu fare ci Benno Bokk Yaakaar ne Aminata Touré bu fekkee ne li muy wax wala li muy woote moo ngi ci moom na leen delloo poste député bi nga xam ne ñoo ko bokkoon ànd Mimi ci tribune yéenekaay mel ni ku naan leen moo lànk du ko def tey ëllëg waxi nopp te nag faaw mu jaamaarloog ñoom waa Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien fii ak 2024 yàggul waaye yoon wu nar a yàgg lay doon ci Mimi ni bàyyi xel ki nu bàyyiwul xel kay moo di Maguette Sène journal bi ne directeur général kuddu lan moo tax defuñu ko ministre ci gouvernement bi ñu weesu monte de bilan bu rëy la def ca kuddu ga muy jiite ak résultat yu mucc ayib faatug Nafisatu Jeeju résultat enquête ba génnagul waaye libération yéene kaay nee na Nafisatu Jeeju ñu gënoon koo xam ci finan te mu faatu ca fan ya la weesu boroom këram dani dafa xaru libération yéene kaay ne police loolee la mënul dégg ba tax fi mu toll autopsie ba la ñuy xaar ndax takk der yi danoo njortu ne ndaw si jëkkër ji moo ko rey Nayan Legos International, NCA Assurance, TDST Tuba Darussalam Karo, Okayar, Norminer mi Gam et la Beauty, Malaysia Yumu ñoo Mai, may gis-gis ñuy waxtane tay jilé ci dundu beeg ni mu chéré ak njiitu réew mi door ay waxtaan demb ngir ñu fexé ba wàññi ko bu euh, baaxa baax ñu nar and ci waxtaan bi ak euh, Cheikh Diop mom moy secrétaire général bu CNTS FC di confédération nationale des travailleurs du Sénégal force du changement ak euh, Boubacar Mbodj conseiller du président de la République ci walum énergie Cheikh Diop ñu ngi lay nuyu. Euh, Cheikh Diop allô oui oui oui maa ngi leen di fay soxna si di nuyuwaale seen auditeurs yi ak sa équipe bi yor. Euh, mhm. jërëjëf euh, monsieur Diop démb njiitu réew mi comme niñ ko waxee rek door na ay waxtaan ngir fexe ba dund gi wàññeeku bu baax a baax naka lañ mën a def parce que sénégalais ñoom daanaka booy xool sax looloo leen yitteel ba yëf yi maanaam du nekk annonce kese ci yan levier lañ mën a taxaw ngir fexe ba jëmmal loolu. waaw ñun jàpp nañ ne taxawaay boobu volonté bobu chef de l'État exprimé ci walu njëg yi mhm. ak ci walu résilience population yi lu ñuy rafetlu la mais aussi lu ñu war a accompagner la waaye nag euh, war nañu fexe ba décision yi nguur gi di jël ak alal ji muy dugal ci subvention yi pour que askan wi mun a soqaliku loolu egg ci askan wi nga xam ne moo tax ñu jël décision yooyu loolu nag dafay laaj aussi

jamono ji ñu toll nga xam ne yëpp metti yépp a cher euh, aduna bi li yépp la fii ci Sénégal ñuy góorgóorlu ci wàllu énergie ak ci wàllu consommation bi pour que askan wi xaw a suqaliku loolu baax na waaye bu yi passé war nañ xalaat ne mhm. subventionner consommation dafa metti te dafa jafe pour nga appliquer ko waaye subventionner production jàpp nañ ne moo gën war nañu sotti xalaat xool nu ñuy def pour que ñu subventionner abondamment les produits agricoles pour que mhm. récolte yi abondante comme ça njëg yi yomb loolu mooy gën a yomb subventionner production mhm. parce que subventionner consommation jàpp nañ daal ne ñun liggéeykat ñun CNTS/FC mhm. jàpp nañ ne subventionner production moo gën subventionner consommation waaye nag dàquñu ko ndax jamono ji loolu la laaj euh, ñu ngi itam ak Boubacar Mbodj ni leen ko waxee di xelal njiitu réew mi ci wàllum énergie monsieur Mbodj ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di sant di leen fay. waaw euh, dégg nañ léegi euh, Cheikh Diop bu euh, CNTS li mu wax démb président ba muy wax ci mesures yi daanaka volet énergétique bi xawuñu koo dégg te moo ne c'est lié ndax dafa am luñ ci def ba noppi wala wala lan la te yenn saa yi itam dañuy gis ni dañuy privilégié ndimbal gi maanaam subvention yi réforme yi ñu teg ko te xaj na loolu moo doon bunt bi. waaw jërëjëf maa ngi leen di sant di leen gërëm. Euh, su ngeen dégloo discours jiitu réew mi. Mhm. Euh, bi ñuy waaj a former gouvernement bi. dellu si na waat ci subvention yi ñu jagleel affaire wu lépp lu jëm ci xeetu énergie. Mhm. Euh, muy doon électricité bi muy doon essence bi ñuy utiliser pour oto yeeg yooyu. ak aussi entreprise yi li ñuy utiliser parce que entreprise entreprise bu fi nekk tey soit ngay utiliser courant pour fonctionner dawal say machine wala ngay utiliser yeneen carburant euh, ngay sa machine pour a produire. Mhm. Euh, euh, tembe gouvernement bi teg na ak milliards. Mhm. cent cinquante milliards. Mhm. boo xamante secteur énergie. mun ñun ci suñu mun ko bu parce que soo xoolee tey bi crise bi commencé day yokk bi li ko waral moo di ne euh, crise bi am diggante Ukraine ak Russie dafa euh, euh, perturbé maanaam dafa xaw a jaxase lépp li nga xam ne organisation la woon ci marchandise bu war a jógee ci benn dëkk dem ci beneen dëkk looloo tax ba muy gën a cher fret bi su su fekkee dafa yokk évidemment lépp loo xamante ne dañ koy jéegaane bitim réew day dal di yokk moo tax cent milliards yooyu su ngeen xoolee bi ñu defee weer bi ñu dawalee weer Euh, gouvernement bi def na euh, lu mot euh, juróomi juróom fukki milliards ci loo xamante ne pour téye njëg yi la loolu mun nañ ko seetlu ci lenn moo di ne ba léegi courant yokkul ñëpp mun nañu xool ne facture courant yi yokkul te Senelec maanaam li muy toggee courant bi dafa yokk bu baax a baax mais gouvernement bi xaalis boobu nag bu jagleel bien que ñun gisuñu ko poste. Mhm, ndax ñi ba dafa cher. Mhm. mais muy électricité bi essence mais situation guerre Ukraine bi. non guerre Ukraine bi wax effectivement lépp lu jëm ci énergie Sénégal parce que ñun dañoo amuloon dara lu loo xamante ne da tax ñu wàññi ko parce que liñ koy jë jënd bitim réew su fekkee ne day yokk di continuer di yokk ñun mënuñu lu dul euh, maintenir prix yi te loolu la gouvernement bi def euh, tey su fekkoon ne gouvernement bi dafa bàyyi woon lépp dem mhm. litre essence dana mën a dem bay lu euh, ñaari téeméer yu teg mhm. gasoil bi bu super carburant bi mënoon na dem bay lu mot 1500 francs mais donc mesure yooyu moo tax ñu mën a am soulagement bi te donc buñu wax ne consommation rek lañu subventionné parce que soo subventionné euh, courant euh, producteur bi aussi ci la bokk parce que suñ ko yokkoon tey évidemment euh, facteur de production yi maanaam li ngay dépensé pour produire maanaam pour defar dara bu defar mburu wala leneen day dal di yokk parce que électricité bi day yokk hmm. nañ ko gisee noonu donc xam ne wax dëgg yàlla gouvernement bi mu ngi jëm li ñu war a wax kay mooy mesures yi ñu gis yëpp temps yi muy euh, cash transfert yi 43 milliards yi ñu duggal ci ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole Sénégal. Mhm. ak mesures yi président de la République wax démb ak affaire wu 150 milliards yi ma wax ci affaire wu courant loolu nag ñun aussi citoyens yi dañu war a am fu ñu taxawee. maanaam parce que adduna bi moo xaw a jaxasoo ci affaire wu économie. Euh, banque yi gën a mag ci aduna bi ñu ngi naan li ñuy wax récession. voilà maanaam crise boo xamante ne adduna bi yëpp lay lëmbee.

ñun mm. seetaat ñun ni ñuy dundee. Mm, suñu suñu comportement parce que àdduna uh-huh. bi ci boppam. Mm-hmm. moo nekk ci jafe-jafe. te mm-hmm. gouvernement bi mu mënul dëkku lépp xam nga li tax. Mm-hmm. suñu jëlee xaalis bi yëpp def ko ci ay subvention économie du doxé non mais euh, juste euh, euh, justement nga bal ma rek maa ngi ñëwaat ci yow légui Boubacar Mbodj Cheikh Diop Boubacar wax na ko nee économie du dox demee noonu maanaam ndimbal ndimbal tout le temps ñu ngi wax récession ci yeneen réew yi mais est-ce que du ñom xagn na dañoo privilégier maa ngi ko doon wax sank ay réformes manam ay ciopité ci seen économie ni muy doxé motax xagn na ñom jafé jafé yi buy ñëw lu muy metti metti dinañ ko mëna a dékku wala bañ tout le temps rek di teg lépp ci ndimbal gi waaw xam nga àdduna bi dafa dafay traverser période bu bu jafe. Mhm. muy aussi période bu précise bu nga xam ne am nañ yaakaar ne xëy na du yàggati ni mu ni mu yàggee woon. Euh, loolu euh, gouvernement jël ay mesures ponctuelles ak volonté politique euh, soulager askan wi loolu kenn amul lu mu ciy wax. Mhm. waaye li nga xam ne mu ngi koy gouvernement mu ngi koy def ci effort ci wàllu subvention énergie bi.

tey la ñuy jënd bitim réew di nekk njëgu cher mënuñu ko jaayee ci biir réew mi état bi war a fay différentiel bi transport bi nga xam ne moom la ñuy yóbbu produit pétrolier yi ca Matam njëg gi di benn ak fii ci Sénégal ñu koy wax euh, différentiel de transport péréquation transport ak perte commerciale yi nga xam ne moom la importateur yi loolu boo ko dajalee dafa nekk dafa diis a diis ci secteur pétrole bi ba nga xam ne daanaka Euh, euh, weer wu nekk dina yokk trente milliards te tey jii ci mois d'août ñu ngi woon ci presque cent cinquante milliards yooyu mu wax déjà passé woon nañ ko ci mois d'août donc tey jii li nga xam ne moom la commencé jur ci secteur pétrole mm. suñu liggéey mais lan mooy solution bi kon ay prestataire lañ mm-hmm. oui parce que état bi mm-hmm. soo demee importer pétrole mm. ñu war a jaay appliquer vérité des prix état ne non bul appliquer vérité des prix nangam la war a jar mais nañ ko wàññi différence bi dinaa la ko loolu d'accord parce que l'option politique bu lu te dina musiba ci secteur parce que commencé nañu prestataire yi ci secteur bi ñu mel yi ak commencé nañu di am libérer kon da nga bëgg ñuy appliquer vérité des prix wala. déedéet déedéet ah. dañu bëgg mm-hmm. état bi secteur mu fay comme option bu parce que bi danaka egg na ci deux cent milliards boo eh, c'était précaution transport bi ak ak ak perte commerciale yi. Mhm. différence pays eh, eh, prix parité importation bi ak li ñuy jaayee fi bo c'était loolu yépp ak ci ci walu SAR ak importateur yi ak distributeur yi ak transport ak ci transporteurs yi bo xolé li état bi yorel secteur bi mi ngi bëgg a daaneel secteur bi té loolu yi wax dëgg yalla gënul. Mhm. kon état bi politique option politique yi muy def nay fexé aussi out les moyens pour hmm. atténuer ko parce que euh, bu fait fayul secteur pétrole euh, mun nañ fa am yeneen jafe-jafe ndax dette bi fi ñu toll nii fi may waxee yow nii diis na gann ci biir hmm. secteur pétrole. Hmm. Euh, monsieur Mbodj on termine avec vous est-ce que jàpp nga ni état bi am na les moyens de sa politique ndax ñenn ñi dañuy gis sax ni lu ci mel ni gouvernement yi néew doole amuñu assez de marge budgétaire ngir fexe ba jafe-jafe yi ñu mën koo jànkuwanteel ndax état bi dina ko antan. waaw dëgg la. Euh, euh, man li ma bëgg euh, wax hmm. rafetlu Sénégal. gis nga Nigeria bi nga pays de pétrole la hmm. États-Unis bi yore réserve yi gën pompe bi à la pompe jóge na trois dollars léegi passé na cinq dollars gouvernement yooyu dañu répercuté yépp ci population yi. Hmm. suñu gouvernement mu ngi mais ku wax ne jafe amul ci àdduna bi ak ci économie ne taxaw mm, ñëpp d' nañ ci. waaw xam loolu ñëpp ñëpp d' nañ ci. Mm-hmm. li monsieur 200 mm-hmm. euh, euh, milliards. voilà su fekkee 200 milliards la wala sax lu ko chaque fois pompe bi bés bu yokkee. gouvernement bi ne man du ma yokk sénégalais yi dafa am da ko Mm. parce que su fekkee ne euh, li ngay jëndee dafa yokk te euh, prix yi gars yi di jëndee yokkuloo ko évidemment perte day ñëw mais loolu chaque fois gouvernement bi day am ay stratégie pour delloo ko nit ñi pour fay entreprise yooyu parce que entreprise yooyu euh, ñun aussi suñu demee ba nërmelu loolu baaxul ci réew mi parce que am na loo xamante ne bés bu amee ñu toog benn fan ñaari fan courant amul ci dëkk bi énergie amul ci dëkk bi loolu mooy dëkk bu tas mm-hmm. te gouvernement bi nag ba léegi mu ngi téye téye bu dëgër dëgër ñu wax ko ci félicité man daal li ma gis moo di ne. Mhm. ñun ñu gën a xoolaat suñu bopp. Euh, am na loo xamante ne war nañ ko xalaat ci euh, suñu société ni muy doxee. crise mhm. su amee est-ce que ni ñu doon dundee démb ak barki démb noonu lañ war a. continuer démb ñu soppi doxalin ci économie euh, d'énergie. waaw non seulement économie d'énergie. économie de tout. mais globalement. Mhm. voilà dëkk àdduna bi moo xaw a am ay jafe-jafe. c'est mondial c'est global ñun aussi dañu war a xool nan la ñuy adapté woo nan lañuy changer suñu jëfin muy ci cérémonie familiale muy ci cérémonie religieuse ak lu mu di doon. lu mel ni France gis nañ ni jamono ñi dañuy xool ndax panneau publicitaire mooy panneau lumineux yi du dem sax ba wàññi ko. wala fay ko loolu lépp ci loolu la ah voilà ci ci yaxanal bi. Euh, voilà ci yaxanal bi mais sénégalais daal moom lu mun di xew na ma doon dunde démb ak barki démb loolu mooy continuer àdduna nag du noonu dañu war di adapté wu xool ne ay jamono jamono moo am jafe-jafe loolu aduna bi yépp la ñuy ñaan yàlla nag ñu génn si ak jàmm ou mm, gouvernement bi amna paquet de mesures yi ñu président de la République jël demb ak li mu def ci énergie 150 milliards ak transfert cash transfert yi loolu yëpp ay lo xamanteni ci budget parce que prévoir wuñ ko won mm. feneen lañ ko jëlé pour duggal ko fofu mm. donc ñu continuer di subventionner di subventionner jëmee ko

incha allah ci kanam euh, tuuti ñu bàyyi leen ak Aminata Ndaw ci yëgle yeeg tàggee yi mbokk yi di leen ñaanal kendal ak jàmm ak programme rajo Futur Media.